ay ndaw yu yëngatu ci wàllu menuiserie métallique nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñooy liggéey ak seen loxo ay machines yu mucc ayib jagleel ko askan wi bu ñu sukkandikoo ci am li ñas seen liggéey boobee ñu ngi ci jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. am réew bu fa xam-xam tumarankee rek euh, réew ma day des ginnaaw te comme Sénégal ñun ñoo moom ñu ñëpp dañoo war kenn ku ne wet ga nga nekk nga ciy góorgóorlu ci jàppale ki nga xamante ni moo fi nekkal euh, réew njiitu réew mi mu mu mu mu yëg yëg ñun ñoo ngi am lu ñuy góor di ko def fii waaw mu mu jàppale ñu yabal ñi nga xam ñoo ñu war a jàppale ñu jàppale ñu. sax amuñu moyen pour di ko jënd dañuy jënd ay weñ yi rek comme ay occasion di ko liggéey mais amul yëfi tubaab bi ci nekk lu dul weñ yi mais ñun ñoo yor suñ suñ suñ expérience di di xalaat di liggéey ba mel nii ay ndaw lañ te dañoo tollu ci liggéey waaw ñi ngi woote waat rek. pour ku ñëw jàppale ñu liggéey ndax bëgg nañoo liggéey te am nañ mbalante pour liggéey mais amuñu mooy bëgg nañ daal ñu ñu seet si jàppale yooyu la machine ndaw yi ñu ngi koy liggéey ak xarañteef gu mat sëkk tax ba du indil benn jafe-jafe ki nga xam ne moom moo koy jëfandikoo. ci machine bi ah, ñun ñoo ko liggéey waa tuddee ko ñun machine bi Xelcom lañ ko tuddee Xelcom lañ ko tuddee ko quoi ah, léegi machine bi moom dafa dafa efficace ñun dañ koo liggéey. moderniser ko ba nga xamante ni su la neexee guddi ak bëccëg da ngay da ngay ji mën ngaa ji guddi mën ngaa ji bëccëg te machine bi euh, moyen de consommation la quoi soo solee ay 3 litres et demi mën nga ci liggéey ba ngoon te du jeex maximum daal comme boo jëndee mille francs essence mën nga ci liggéey toute la journée te du jeex. mbànd mi dañ ko def euh, dañ ko yokk nga xam par quinze kilos lay jëlandoo mbàndu machine bi. léegi su fekkente ne yow da ngaa yor comme par exemple tool yu mag daal da ngay jël trois personnes comme ça bu kenn ki xëyee 6 euh, heures bu demee ba midi day wàcc nga joxaat keneen ki moom mu dem ba 4 heures mu wàcc keneen ki bu demaatee ba 19 heures mu wàcc da ngay mën a am 500 kilos juróomi barigo par jour waaw nga xam tonne bi 2 jours nga koy ji daal une tonne gerte nga ji ko ci ñaari fan te moteur bi dina ko mën a tenir attan na ko liñ bëgg ëpp na lii mais amuñu Euh, moyen bi bu ñu ko defee am na ay machines yu bari yu ñu soxla yoo xam ne suñ ko amoon danañ liggéey lu gën a jaar yoon lii. am bi ñas ak ndaw yi mu àndal ñi ngi woo ñi ne di nguur gi ak commerçant yi nekk ci dëkk bu sell bi ngir ñu gën leen a jàppale ci seen liggéey bi nga xam ne defuñu ko lu dul ngir bi jàppale askan wi.